Mhm. du mel na la fi daa am te duñ ko jëriñoo muy ay or ak yooyu mhm. mais cette fois ci nag dañ ci mën a jëriñu gis ci suñ bopp mhm. xam naa dama koy dama lañ koy séddale yàgg euh, mu niwu bu ko defee nag euh, ku ci nekk am ci trois minutes rek d'accord ñu jaar ci moom nag dem ci deuxième tomb bi insha allah xam nga léegi dafa am solo xam nga léegi rek mu niwu mu ngi rappeler le nombre de projets yu gars yi tëraloon ci plan Sénégal émergent hmm. euh, pourtant gouvernement bi waxoon na la ñoo bëgg a def PPP ñu bëgg def partenariat public privé. ba muy wax loolu di ko lancé parce que le PS dañ ko lancé 2014 dañ ko lancé carrément parce que le PAP 1 2014 2018 la woon le juridique pour partenariat public privé bi defar guñ ko Euh, nga xam ni tappale weesuwul rek ngay wax dara li nga xam ne le cadre associé euh, n'est pas encore présent yaa ngi koy woote. ñu ngi wax léegi protectionnisme. jàpp naa ni tudd liir bu juddagul daal tudd liir bu juddagul. Euh, jàpp naa ni am nañu ay outils yoo xam ne en dehors du protectionnisme am nañu outils yoo xam ne suñ ko jëfandikoon sax on peut renverser la tendance bi si njëkk mooy tudd mooy le marché public. Mhm. le marché public outil bi nga xam ne état mën na ko jëfandikoo xool nu mu mën a booster nu mu mën a liggéeyee avec les PME et les qui constitue plus de quatre-vingt pour cent du tissu économique quatre-vingt-dix pour cent. Mhm. ay PME lañ. yoo xam ne amuñu kattan mobiliser ay milliards yooyu mais état war na mun am un fonds ba pare amaale un des projets publics yoo xam ne maanaam la budget euh, pour mën leen a jox ay marché mën leen a suqali muy benn mais ñaar on a un accord qu'on appelle AGC accord OMC la. Mm. donc accord bi el donne la possibilité à tous les états kuy ñëw di investir nga choisiral ko euh, ñaata nga nar investir fan ngay localiser wu. sa capital nan nga koy ubbi nan ngay embaucher ay cadres maanaam état Sénégal am na moyens yooyu sans pour autant violer la loi. Mhm. Euh, man ba Auchan di ñëw Sénégal nee naa état Sénégal amoon na possibilité exiger Auchan bu ubbi capital am à des Sénégalais état euh, loi bi moo ko may jusqu'à quatre quarante cinq pour cent. wala 48 pour cent su ne ay sénégalais ñoo ko war a moom. état Sénégal ay cadre ne ko sa ay cadre bu sa genn wàllu cadre yi nekk ay sénégalais. Mm-hmm. lii yëpp état Sénégal n'a absolument rien exigé et li nous renvoie man la xam sa benn xarit bi nga xam ma woo dama mais tu sais Cheikh ma ne parce que les dirigeants qui sont chez vous traiter avec nous. parce qu'ils veulent des pots de et ne veulent pas que les Sénégalais sachent de quoi ils sont capables. Mm-hmm. bu dee Sénégal lañ jox marché bi laaj ko lekk day siiw ci biir Sénégal waaye bu dee étranger yi jàpp suñ ko laajee lekk kooku day dem yóbbaale information bi donc ñun on a des mafieux yu nekk mm-hmm. aux affaires au lieu ñu liggéeyal askan bi ñuy ñuy liggéey ci kaw askan bi. Mm-hmm. et lii problème la donc Pa Pa Maguette euh, yaa ngi wax léegi ci wàllu ci wàllu gaz ak pétrole ñun on a une loi euh, sur le contenu local loolu moom maa ngi koy maa ngi siy ziar borom kaddu gi moom dina xam kala dina xam dina xam kala lay waxal moom mooy borom kaddu gi. la loi sur le contenu local donne des possibilités sur nag la ñu war a àndee ci wàllu exploitation pétrole ak gaz yi fii au Sénégal même bu dee loi bi suñu première ah c' est une loi qui est qui bien euh, début bu baax la mais loi bi accompagnement yi mu laaj yëpp dara amu ci maanaam sur les questions sur les sur le gaz le pétrole la loi montre que il doit y avoir des partenariats yoo xam ne sénégalais naka la ñu mën a lekkee ci marché yi ci chaîne de valeur bi yëpp pétrole bi gaz bi. mais accompagner entreprise sénégalaise yi y' pas de forme leen accompagner y' a pas un centre d' bi nga xam ne moo war a coacher projet yooyu pour les sénégalais y' pas euh, amul dara Sénégal dafay bind daal ay textes ni kese ba pare jël tubaab jox leen lépp ñu koy jëfandikoo li nag Pape Maguette jàpp naa ni jafe-jafe la bi nga xam ne fii ñu ngi nekk ci lii. mun ñoo avancer aujourd'hui les les les projets gaziers Sénégal ñëpp nangoo ni léegi dafa bokk léegi suñu li ñuy wax GECF. GECF mooy genre OPEP du gaz. nous sommes septième au mondial ci wàllu gaz. donc on a on a des puits yu bëri bëri déjà en offshore on a neuf de pétrole et de gaz en onshore huit puits dix-sept yoo xam ne actuellement ñu ngi koy ngi koy ñu ngi exploité si at bi ñu ko war a exploité ah. donc plus de cent cinquante et quelques puits yoo xam ne ko a gas di ko jariñoo mais lii kaay nar a jariñ ah. maanaam ñun suñu courant nar a yokk ren bi rek président Macky Sall début d'année yokk na pour cent ci électricité bi ah. maanaam lu ñu doon fay courant ñu war a yokk 15 pour cent mu ñu xam ne ne dans wu sans pour autant béyaa euh, bàyyi maanaam les prérequis les inputs. soo ko réglé wul et bu noo ko croissance ak compétitivité. et loolu énergie si la bokk. Sénégal pourtant moo engagé wu au niveau communautaire ne le kilowatt euh, dañ ko jaay à moins de quatre-vingts francs aujourd'hui Sénégal ñaata lay jaay kilowattam à plus de cent francs courant bi gën a cher sous région Sénégal ko am. et on n'en parle pas pourtant Sénégal dem na ba am un surplus d'énergie maanaam la production au niveau intérieur fii dépassé na mille euh, mégawatts. utilisation bi intérieure bi ay six cent quelque la donc Sénégal dem jaay maanaam ñun dafay jaay courant a la sous-région. wala maye mu cher ah? wala maye. waaw di ko maye. Ah. dañuy maye di jaay sous-région bi. Ah, am am na ñu maye daal maanaam suñu coût de production yi dañuy maye suñu de production yi changé wul suñu ay facture changé wul. wala dañuy defar gaz gaz bi y a un projet gaz to power. qui dit qu'à partir de 2024 dinañu wàññi 50 pour cent des coûts d'électricité parce que gaz bi on va l'utiliser pour mën a dimbali encore fii Sénégal w wàllu courant. mais Pape Maguette ñun naka la ñuy mën a dundee ci dëkk bi nga xam ne yaa ngi foofu émergence euh, ñu ngi yokk courant yokku gasoil gasoil bi nga xam ne input la ci entreprise yu bëree bëri ñuy liggéey dans le secteur informel ak petit commerce beeg tailleur beeg ñëpp dañuy mm-hmm. utiliser courant te su courant yokkee normalement seen ay produits ñoom dafa war a yokk dans la théorie on dit que coûts yi suñu yokkee bu ñu bëggee reste dans un niveau de marge il faut que les Euh, les prix. Euh, dafa nar a yokk inflation kese. donc Pape Maguette gëm nañ ni. Sénégal acte bi nag di posé du début à la fin acte la yoo xam ne kii kii c'est des c'est des actes d'antigestion sax la yoo xam ne acte la doxul pour soulager population yi. yërëmuñ ñu euh, chaque fois ma dégg gars yi ne Sénégal gars yi jiit yi liggéeyuñu ñu ngi liggéey waaye dañ ñoo liggéey ruur. te li koy firndeel mooy barki dina xam mbokk ma woo ne ma mais Marine Le Pen président Macky bi Sénégal au cœur. war envoyé photo bi sa dédicace bi dama loo ci xalaat xalaatuma si dara ma ko dama gis rek ñaari citoyen yu bokk bëgg-bëgg yi tasa toog waxtaan laa misoo déggalante parce que Marine Le Pen kenn umpalewul dafa bëgg France elle France dafa bëgg France France mooy itteem mooy soxlaam mooy ay yëngum mm-hmm. mais comme moom nag bu ñëwee waxtaan ak naataango compatriotam yoo xam ne moo ko gën a bëgg France moom mm-hmm. mu ñëw toogam ñaan ni waxtaan ci biiru France ma ko où est <laughs> Euh, ak lépp lu mu yàq nit su ñuul yi. ñuy mhm. recevoir Marine Le Pen au Sénégal pare interdire ku mel ni bi Seba mu teg tànkam biir Sénégal lii c'est honteux euh, mhm. dans un pays comme le Sénégal donc pour mhm. dire que rek suñu njig gi liggéeyul Sénégal très bien maanaam moom taalibe tubaab yi la moom day liggéey daal pour pour pour pour jëriñ entreprise tubaab yi moo tax ñun waruñu xaar dara ci moom ci développement ci dëkk bi euh, professeur Mounirou maanaam fii ñu jëm am fi gaz am yooyu yëpp professeur wax na ko liñ ci am bari na or jaar na fi dañ koy dégg ba tey amul jeexital ci suñu nekkin naka lañ mën def ba lii fi jot a am bu egsee ñu jariñoo ko te kenn bañ ci ëppale kenn nag. waaw xam nga déjà euh, Sénégal comme ni ko Cheikh Omar waxee euh, wate nañ loi sur le contenu local je pense que loolu moom mooy déjà premier jumtukaay bi nga xam ne mën nañ ko utiliser. ba pétrole bi ak gaz bi lu ci bëri mën a des si mais nag am na loo xam ne Sénégal yi dañ ko yaakaar mais amul Sénégal dañu yaakaar ne contrat yi ñu ko tëggee Sénégal du ci am dara mais Sénégal dañuy jaawale euh, profit oil mhm. ak rente pétrolière mhm. waaw boo jëlee rente yi daanaka bu ñu xoolee fiscalité bi xool Sénégal part yi mu am Petrosen parce que Petrosen am na dix pour cent ca la ñee moom. Mhm. yoo xam ne dafa nekk actionnaire ba pare partage de production bi Sénégal am na benn paaram déjà. boo calculé loolu. Mhm. lu ci bëri Sénégal la war a des. il faut que donc loolu ñu préciser ko beneen bi moom mooy contenu local bi dañ ne tout la chaine de valeur muy transport bi. Mhm. muy distribution bi muy lépp lu jëm ci wàllu distribution pétrole ak production bi. dañu war a am ay parts yoo xam ne sénégal yi ñoo koy moom. mais damay wax benn affaire gis nañ ko. mais pour ñu mettre en œuvre. si nga xam ne cin bu ma mel ne baxee xeeñ. lii xeeñ mooy Sénégalais du ñu am dara. parce que gouvernement yi fii ils ont un comportement investisseur-icide. c'est-à-dire que ku tëb làmbi golo ku jub daanu. cest à que tey jii Pape Sané bu nga doon am xaalis. gis point boo xam ne mérité dem